alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummati ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ci liggéey bu tedd bii di leen balu xaqit di leen balaq di ñaan suñu boroom mu boole ñu baal di jotal ay cant yu yaatu daaira bi ak ñi ñu siqal bis bi ñépp waxtu wi moo xat moo tax bëgguñoo baamuwaat ñi yëg ñëpp kenn ku ne ñu la cay tudd di nuyu ngir xataayu waxtu wi waaye sant nañu ñëpp sant liggéey bi bu baax rafetlu ko ni nga xam ne noonu lañ ci daan amee cant ameeti nañ ko ci mbaa gu ko raw Sëriñ Xalil ñu ngi lay sant bu baax ci mawdon bi ni nga ko traité maa ngi koy wax sànq bari na ay sew-sew yu mu dugg yoo xam ne ñu bari soo leen ko joxoon seen xel du dem ci loolu te xeetu soññee bu bare gi ci sëriñ bi ak xam-xam dafa mel ne ku ciy gëstu te mel ne man lekk-lekk mën nga cee def yëfi ku tayeel mooy boo songee téere yi bayit yi wax ci xam-xam day bari waaye yii mu dugg nag ci nu mu doon jànge itte ju mu ko joxoon sàmm gam ca boole woon jaar-jaar ya loolu fàttali ko ñi toll ci sàkku xam-xam loolu lu am am solo la jazakumullah xayran defe naa ne laytaay ji ci sëñ at bu defoon waaye sëñ Muxtaar ni mu dikkee lu ama am solo la ba tax na kon yaakaar naa ne dégg ak topp rekk moo des yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne suñu déggee wax topp la ci gën a rafet waaye fi ñu toll day ku bëgg a ku bëgg a topp moom déggees na fi les mën a topp xam naa xataa waxtu wi nag tax na kon ni ñu ko sakkoo woon ci programme bi dina ci am lu wàññiku mooy santit mbooloo mi bu baax ci teewaay bi ñu teew rawatina mbokki soxna yi ak yëngutu yi nga xam ne ñu ngi koy am ci daaray alquran yi nekk fii ci lëkkaloog soxna Umu Kalsum Fay waaye ak soxna Moomi Mbakke ak soxna May Mbakke ak soxna Awa ak ñi ñu àndal ci taxawu gi ñuy taxawul sëriñ bi njaboot gi loolu it ci liggéey bu am solo la bokk defe naa fii sëriñ Moxtaar tëje muy bu ñuy wax sëriñ bi ak xam-xam sëriñ beeg alquran tomb bu rëy la ci biir loola loolu nag day lees munta bokk moo tax deesu ko ca ber waaye alquran moom maddatu kulli ilmin wa asluhu sëriñ beeg alquran lu réy la moo tax képp ku ko ci jàppal jàppal nga ko ca la mu bëgg ko ca jàppal te yëg nañu ne soxna yi jàpp nañ ci bu baax ñu ngi leen ciy sant ci lool yi bu baax tey ñaan ngeen dajee ci ak ngërëmal suñu borom tabaaraka wa taala dajee ci ngërëmal sëriñ Touba liggéey bu am solo la léeg lekk ma dem ci jataay yi dina bokk ca la ma cay wax mooy barab yu mel noonu danaa gis ñu bari ñoo xam ne su bis bañ jàpp jotee dem di fóotal daara ya bari na ca ñoo xam ne bu dee seen kër dañuy fay ñu fóotal leen waaye su ñu nee tey nag donga yi ci daara ji lañuy fóotal dañuy dem futtiku di fóot te ku ne xam na séri dongab daara fóot sa séri bopp mbaa sa séri doom moo gën a yomb fuuf waaye nag sëriñ bi tax ngeen di ko def te di ko defal ci alxuraan am na pay yal na leen fay ngeen ji fay Euh, jàpp googu yit ci waar woo wii lu am solo la waxtu wu nekk jamono mas naa soxla ñuy jàppale ndaw ñi ci daara yi waaye waxtu wii ñu toll la rawati ngir fi jamono toll ci dox ak yëngutu ak développement dafa mel ne luy nuroog des gannaaw dafa cee yomb ba tax kon jël sa itte jëme ko ci lu am solo la euh, tënk bu gàtt nag ci ni nga xam ne sëriñ bi annoncé woon na ko jamono yii ñu toll ñi nga xam ne ñu ngi topp média yi ci biir réew mi wala ci jumaa yi ci dëkk bi ak sax conférence yu baree bari am na loo xam ne jaaxal na xel yépp mooy lan gouvernement Sénégal dafa génne benn projet de loi boo xam ne dox na ba xaw a àgg ca cat la ndax techniciens yi liggéey nañ ci depuis 2010 techniciens yi ak ñi ñu ko seqal ñi ngi ci def ay atelier di ci liggéey di ko delloo ci inspection des daara ak ministère de l'éducation mu ciy collaborer waxtu wu nekk ak ministère yi nga xam ne ñoo laal xale walla ki nga xam ne dafa yore justice wala ñu yore ndimbal wala dangam en tout cas ministère yi laal loolu war nañu mat sept yoo xam ne yépp ñu ngi ci biir bi ñu demee ba tënk dossier ministère bi jëlaat na ko ak i nitam ñu ràbb ko bi ñu noppee yóbbu nañu ko présidence mu jël ñeenti décret boole ca mu war a nekk ay décret d'application ñu yóbbu ko assemblée assemblée def ci séminaire xool ko jàngat ko ba ci ñoom ñu jàpp ne léegi baax na ministre bi ànd ak ay député ñu def tuuru Sénégal dem ci kilifay diine yi bopp turux yi wër nañ ba dajal ci Médina Gounass ak famille omarienne ci lañ dajale fu ñu ci dem wan leen ne gouvernement bi dafa am nisari jàppale daara yi taxawu daara yi jàppale sëriñ daara yi fexe ba gone yi condition yi ñuy dund mën a wàññiku nga xam ne kooku boo demee ci biir sax danañ wax ne dëgg la mbooleem ndimbal yi nga xam ne bitse bi Massamba jóge ci gouvernement bi daara bokk ci woon waaye léegi nag sart yi ñu tëral ku ko def di nga si jot ay wax yu mel noonu lañuy wan kilifa diine gi yëkkati këyit wi jox ko noppi tàllal koy loxo tàgg ko mbokk yi wax ju rafeti nii ku ko wax nit ne ko taxawu gone yi ba dootuñu yalwaan taxawu sëñ daara yi bañ am lu ñuy jàpp fexe sax ba defal leen ay formation nangam ak ki nangam loolu lañ bëgg danaan la jërëjëf su fekkee jërëjëf ji nag wax nañ ko ca kaw dañ koy yëkkati ne sëriñ si ànd nañ ci lool yi fekk na yërëguñu sax li ci biir kuñ ci dem te fekk waxuloo yéen ñi doon topp télévision bi tey xool da ngeen gis ne ministre bi mooy waxal boppam après wane ne sëriñ si ànd nañ ci fi mu dem fépp loolu amul fenn foo xam ne wane na ne àndu ci ànduñ ci te am na ñu ci àndul loolu nag tekkiwul ne ñun en tant que ay sëñ daara dañu nanguwul euh, régularisation mooy jaarale daara ci yoon ci liñ koy tudde aha kay euh, lépp loo xam ne luy jëmale liggéey bi ci kanam la ak di ko gën a teg ciw yoon ñun dañ caa nekk sax balañu ko bala ñu caa kenn di woo su fekkee am na kuñ ci jiitu ba diñ ca woo it dañ cay wuyu waaye nag procès bii moom wuute na lool parce que ci jamono yi ñu yi passé am na procès boo xam ne ànd nañ ceeg ñoom liggéey muy lu mel ne PAMOD procès d'appui à la modernisation des daara am na beneen bi ñuy tuddee paquet mu nekk ci biir paquet te banque mondiale financé ko su dee PAMOD quatre daara la 32 daara. publique 32 daara non publique ñu séddale ko ci juróom-ñaari région ci réew mi su fekkee paquet la téeméeri daara la ci vingt IEF muy 20 département la nekk yooyu ñu ngi ci àndoon nañ ci ak ñoom ñuy liggéey mais kii nag projet de loi boo xam ne dafa ne dafay réglementé la mais ci réglementation bi li si jëkk doy waar mooy jàpp nañu ne jamono weesu na fu ñuy jëlee ab secteurub lëm di ko liggéeyal te doo ko laaj xalaatam maa leen di wax fii ca kaw ne projet de loi bii nga xam ne moom lañ yëkkati mu toll fii nga xam ne dem assemblée ñu wote ko moo ci des xalaati daara nekku ci te su ma ko waxee ngeen xam ne xam naa ko sama mustawaa ci rabita bi may na ma ko sama mustawaa ci ittihaad bi may na ma ko maa jiite rabita bi ci Touba. ci ittihaad wataniya jamiyaat madaaris al-quraaniyya ci région Diourbel maa ko jiite ci bureau national troisième vice président laa ca chargé des relation avec les ONG et les familles religieuses participé naa ci atelier yu bëree bëri waaye gouvernement bi jëlul xalaati sëriñ daara yi ci lii li lim fi fekkoon it muy accord cadre bu ñu signé woon 2010 ak ministère de l'éducation ba fa nekkoon la nekkoon ci biir dugaluñ ko ci lii kon xalaati daara nekkul ci biir. loolu yëpp amul solo lool ah kay am na solo parce que ay nit ñoo xam ne ay boroomi xam-xam lañu lañu nekk ñu nekk ca lu mat junni at daara ba mu duggee ci réew meeg léegi mat na junni at gouvernement musu koo defal dara te tey la daara gën a bari tey la ëpp doole tey la gën a yaatu liy jàng alxuraan tey la ëpp lii mokkal tey la ëpp te musuñu koo defal dara soo bëggee dugg ci biiram danga koy laaj xalaatam Euh, kon loolu moo jaadu ànd ak loolu yépp nag soo su ma defee tënk bu gàtt ci li ci waroon xaju ci parce que lii sama ba tey la aljuma ci la jëmoon loolu xajul ci muy ñëw fii waaye dinaa leen ca tuddal jox leen it ay dellukaay yoo xam ne da ngeen ko ca mën a fekk ngir am ko euh, projet de loi bi dafay wax ne sulwaa bii taxawee mooy su ko assemblée watee ba mu dagan te nee naa leen pare na parce que quatre décrets d'application yi ci war am président dugal na ko ci ba pare assemblée wate ko rek moo des su loolu amee yàlla bu mu am parce que ak amam dellu gannaawu daara la su boobaa njàng mi ci biir daara gi définir na ko ci juróom-ñetti at ab donga juróom-ñetti at lay am ci biir daara sañatu caa dolli ñaari guddi juróom-ñetti at te li may wax nii mu ngi ci mbind mi ku ci dellu da ko gis def nañ ko arab def nañ ko français ñoom ñoo ko def sax du ñun ñoo ko def gouvernement moo ko ci français la ko bind tarjama na ko arab bi mu ko bëggee yóbbu ci kilifa yi diine yi juróom-ñetti at yi mu ne daf ko séddale ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi ñetti at yi gone gi alquran la ciy jàng alquran su ñetti at yooyu jàllee am na ñaari at yu ci topp euh, ñetti at yi ñuy jëkk a jàng ci école francais bi muy CI bi 1 ak 2 ak c bi ñetti at yooyu moom la ñu def ko programme ñaari at ne sëñ daara bi nañ ko jàngal sa donga bi ci ñaari at su fekkee alxuraan ji matutoo nit nga fexe ba mat ci muy juróomi at su juróomi at yi matee gouvernement bi nee na maam Serigne Dia yow mi yor daara di jàngale alquran te daara ji di sa daaray bàyyi nga donn ko moom ko mu nekk fii Touba parce que lii gouvernement bi di wax du ay daaraam yu muy tabax du daara moderne du lum moom daaray maam Serigne Dia ji ci kër ñang mu donne woon ko ci baayam ci la bokk jooj xaadi jaxate jam donne ca baayam ci la bokk jine ci territoire Sénégal yépp ci la bokk ñu ne ko su juróomi at yi matee yow mi tànn jàngale alquran sëñ jiw matan doomam jàng alxuraan mu yëkkati ko jox la donga bi am na juróomi at ci daara ji sañatoo koo jàngal alxuraan ñetti at yi ci des xam nga loo koy jàngal CM2 euh, ak li des ci ñetti at yi des ci kii bi pour nga pour pour ngaa dem cm def entrée en sixième ñetti at yooyu ci des loolu nga koy jàngal c'est uniquement réservé ci programme officiel bi nekk ci école euh, française bi kuma sa gis loolu donga daara bi ci biir daara ji woy juróom tànn yóbbu ñu jàngal ko alquran sëñ daara bi tànn jàngale alquran gouvernement ne ko def na juróomi at ci daara ji dootoo ko jàngal alquran programme diine it nekkut ci kayit yi ñu jox jàng xam-xamu diine wax ne su bi taxawee jépp daara ju ñu fi fekkoon ñetti at lañ la may nga wuti ay këyit lañ ko wax ci ay këyit nag moom dem Brésil ak Italie ko gën a yomb li ñu wax sëñ daara bi ngir na ko am ci këyit pour mën a ubbi daara li lijjanti këyit dem foofu gaa ñuy dem su ko amee ba àggal ñu ne ko même yow ci sa bopp pour nga jàngale it daanaka lu toll noonu lañ ko laaj bokk na ca biir sëñ daara bi jur doomam doom ji jàng alquran mokkal ko bind juróomi kaamil bind fukki kaamil am fukki at ak juróom-ñett mën a jàngale feek demul inspection bañ jox ko këyit mu sañ jàngale sañu ko jàngale loo te moo jur doomam ne ci biir daara ji ñu ne bu luwaa bii taxawee ki bëgg ubbi daara nga xam ne ji fi nekkoon wax nañ ko ne ko ñetti feek ñetti at lañ la may waaye keneen ku bëggatee ubbi këyit yu mel noonu moo waxoon lañ ko laaj su ko wutee nag ba déposé ko bañ jox ko ab reçu buy wane ne déposé na ñu ne ko léegi mën ngaa tàmbali en attendant nga door am récépissé bu complet waaye li feek këyit woowu jotoo ko yaa moom sa kër ñaq ko mu lew la doom yaa jur sa doom mokkal nga alxuraan am nga ëlloo feek jotoo ci këyit wi sañoo koo bindal baax dañu ne soo demee ba déposé bañ jox la ab reçu nga ŋàbb ci ngay door a sañ a jàngale ci daara ji yamul ci loolu waaye sëriñ daara boobu moom daaraam te nekk ca biir di jàngale teñ wax ko ba mu jaar ca kayit yee ba am ko bis bu demoon ba ak mageem mayatu ko wala mu wéradi mbaamu faatu doomam mbaa rakkam jafa nekk du ko doon inspecteur ba mooy mooy wax ku war a wuutu ca daara joojee mënumaa del si fii naan leen article cinq alinéa deux déedéet waaye alinéa deux lépp mi ngi ci mbind mi su loolu jàllee eh, daara ji gone gi fi jànge alquran ba mokkal ko ba mokkal ko këyit wuy tax ñu xam ne kii mokkal na alquran sëriñ daaraam boobu mënatu koo bindal waaye inspecteur académique moo koy signé danaa ci posé question ne waaw bu inspecteur mokkalut alxuraan nag waaw bu inspecteur ferut ijji nag bu inspecteur deeb yéefar nag am na fi di layig la inspecteur académie ñoo koy signé donte am na ci ñu baax nangul lañ leen ko ñu ngi liggéey ak ñoom mais yëpp mën a am yaatimal euh, ci wàllu ba léegi jàngale mi programme boobu ñu la tëralal ñoom ñu koy saytu di ko xool waxtu wu ñu ci gisee loo xam ne dëppoowul ak li ñu tëral dañuy wax ci wàllu wér-gi-yaram gi su boobaa norme yi OMS wax gaa ñi ma gën a miin e-, seen école yi sax ne nañ mën nag amu ca wax ci wàllu sécurité wax ci bagage yi nekk ci biir yépp luñ ci xool ak ñoom la ñuy tudde melokaan yi yella bonne mœurs luñ ci xool tane ne méngoowut loolu autorité locale bi muy inspecteur bi sañ naa tëjagun daara ji gannaaw boo xam ne bind na benn avertissement bu ca changement amul six mois après loola ministère sañ naa def constat ndax soppi ko am na wala déet su amul mu tëj ko niha iyan lu mel noonu moo ci nekk soo ko jëlee di ko yër ba mu jeex ci texte bi nga xam ne ñoo ko tarjamal seen bopp walide ko door ko génnee lépp loo ci xam ne dañ koy sant sëñ daara bi ne da ko def dañ naan yajibu ala saahibil madrasa aw ala al masulil molin muy déclarer responsable bi yajibu alayhi su dee lu ñu koy dikk dañ naan yumkinu yumkinu il se peut mën naa am mën naa ñàkk kon li wóor mooy su juliiti Sénégal toogee di xoole ba projet luwaa bi bii bi bëgg jàll loola mooy tekki ne alquran ren di nañ ko gasum pax suul ko ca laa qadarallahu wala sama e, ndax lan jàng alquran ñetti at la dëgg la ñit ngi mokkal ñetti at alxuraan ñetti at waaye nit a koy mokkal juróom-ñaari at juróom-ñaari at nag moom kenn sañu koo jàng alxuraan moom juróomi at kay yoo xam ne ñett ñaar yu mujj yi liñ ñuy jàng ci école français bi ci ñetti at dañ ko condensé nga xam ne programme ba day gën a diis fuuf ne la nag mottalil ñetti at yu mujj yi moom boo ko bindalee alxuraan sañ daara bi tey nga dee xel xalaatu ko wàllu yalwaan ñu ne su luwaa bi taxawee bépp sëñ daara bu sa dong nga génn yalwaan yi yalwaan yi li luwaa bi wax ci loolu danañu la ko teg loolu nag li ma ci mujjoon a xam ca 2010 jamono yi Souleymane Ndéné Ndiaye jëlee woon arrêté boobu mu jëloon ca koor googee wax ne ci territoire u Sénégal interdit nañ fi yalwaan fu dul buntu jàkk ak buntu église teñ ne ko woon dangaa juum ndax jàkk yeeg église yi tàmbaleeguñoo gu ñoo togg añ mel na ne xam na ne juum na jamono boobee rencontré nañ ci Ndeye Khady Diop ministre la woon keroog yëkkati na loi bi jox ma booba loi ba la wax mooy ki goneem génn yalwaani mën na am ñaari ati kaso ba juróomi at mën nañ ko alaman trois cent mille francs ba cinq millions xaw ma nag ndax yokkaat nañ ko wala déet waaye loolu laa mujjoon a xam ci loi bi su loi bii taxawee nag gone gu génn ti yalwaan yi sëñ daaraam loolu mooy risque xam naa kon boy boo way jur yi jéem a nag farlu ci togg añ ak fexe ba gone yi dootuñ yalwaan yi li am solo mooy lii du dara lu dul soppi daara yi ay école te it su fekkoonte ne dafa doonoon seeni daara ñu bëgg koo soppi école waaye daara joo xam ne sa yoon nekku ca bañ koy defar fekke woo ko ka jàngale formé woo ko ñun ñi jàngale ci daara yi état formé wuñu et pourtant ñuy bàyyi dañuy fay impôt ñun ñii lu ñu dajal dañuy fay impôt te ñi ngi formé suñuy doom te boolewuñ leen ci ndax budget bi jëlewuñ ko fenn fudul ci impôt direct ak indirect yi yii ñuy jënd yépp ñu ciy teggi taxi ak liñ ñuy fayloo ak liñ yalwaane ji ci suñuy tur loolu rek mooy bitse bi waaye ñi bëgg a jàng alxuraan nag amaguñ ci wàll li ngeen fi gisagun te di ko dégg muy nur ay programme it bum leen nax daara moderne yi 19 ci biir réew mi yi nga xam ne ci procès Wade bi la bokkoon waaye yi ciy jàngale jenn laa ci xamagun bu wér ne mi ngi jàngale muy ji nekk fii Touba te Serigne Salih joxoon ko sëñ Abdou Fatah ci école Daaru Xudos bi te sëñ Moustapha Diop njëkk na ca ose lu ñu fi am lu ñu bëgg sax foofa la ji ñëw filmer ko ci ci des yëpp caabi yaa ngi ci buntu ya kon kooku lu jëriñagun sëñ daara su fekkente ne pamot bi ma leen tudd léegi projet d'appui à la modernisation des daara 10 milliards yooyu banque islamique joxe ba tey jii jëndaguñ ca benn saakub ciment. kooku moom kon taxagut ñuy wax benn saakub ciment dindaguñ ko ci et pourtant depuis daaw 28 novembre 2013 defoon nañu cérémonie officielle ca Sorano président def lancement bi wax ne liggéey bi na daal di tàmbali te waxuma benn daaraa ki ñaar waaye nañ tàmbaleendoo yépp en tout cas ñu ngi ci 2015 te loolu 28 novembre 2000 treize la woon te ba tey jii ba wax ak yéen waxuma la mool waaye jëndaguñ saakub sima te xaalis buñ jox daara yi la bañ koy négocier man participer naa ñetti yoon ci biis banque islamique di Sénégal délégation Ittihad bi bokk naa ci ñetti yoon délégation inspection des daara ak mission bu jóge Jidda jóge banque islamique jamono boobu juróom-ñaari raison lañu wiise woon ci Sénégal région bu ne am juróomi daara muy cinq daara gannaaw bi ci 2010 jëm 2011 la inspecteur inspection des daara mujj démissionné faf régime bi sensé ñu soppiwaat ko ba def ko 64 daara yi ngeen di dégg 32 yi nekk daara non public 32 yi nekk daara yoo xam ne sax fi ñu toll problème mu juridique la am nuñ koy tuddee. privé lañ waxoon ba mujj ñu ne privé dafa diis kon kooku da ciy sañ a soppaxndiku ki ko yor léegi ci turu non la amagun ba tey moom it doxagul su fekkee paquet bi la boom it contrat de performance yi jàpp naa ne signé nañu yëpp waaye ba nëgë ni dara doxagu ci moom it téeméeri daara la war a doon ci biir réew mi moom nag du dem di tabax daara waaye day fekk sëñ daara ba ci biir daara ja mu jàppale ko waaye su boobaa day jàngale huit heures de temps ci français xëy na loola programme yooyu moo gën a woyof duñ la forcer ci nangam question de soi lay doon ak ñi cay dugg ak na muy demee mais bu dee lii moom force la soppi daara yi ay école soppi daara yi ay école ñoom nag ci façon biñ koy waxee ku nekkul ci terrain bi dinañ la ci nax waaye ñun ñii ne ci terrain bi ne ci daara yi ba noppi di jaxasoog ñoom xam nañu ne defar taxu leen a jóg ci lii bi ñuy waajal ubbiteeg école bi ministre de l'éducation doon na wër réew mi di def ay raison di fa dem di waxtaan bi mu defoon ci Jurbel invité woon nañ ma ci demoon naa waxoon naa ko ne ko projet de loi bii ne ci cirque bi te xam ne toll na ci cate te ngeen bëgg koo wane 2010 la ci daara gëj a xam dara su ngeen ko bëggee génnee ci noonu nag. la ngeen ca def bu baaxee sax daara day lànk waxumaag bu bonee te moo tax euh, ajjuma ni tey gannaaw bu ñu jullee gee yóbbu nañ lii ci sëñ Sidi Muxtaar ñun ñii ànd ak ay kilifa ñu dem fa leeral ko ci lu baree bari mu wax ne ñëwoon nañ fii dama leen a waxoon ne ànduma ci daara yi nañ ko bàyyi na ko mag ñi bàyyi woon sëriñ bi bàyyi ko ni waaye bërki bi ci guddi nag weesu na loolu moom sëñ Sidil Muxtaar wax na ni duma ko nangu tey duma ko nangu ëllëg duma ko nangu ba fàwwu te sama bakkan laa ci teg bërki bi ci guddi kero gaawu lañ xëyoon ci sëñ Muntaqa bi ñu àggee tàmbali di ko wax rek dafa dafa daal di xaalu dem leen te jàngi dem leen te jàngale ji lii mënta am lii moo jar dee nit ñaa ngi dee ngir jom ñee ngi dee ngir bakkan lii moo jar joxe bakkan kum jaralul bakkan lislaam jaralu la dara dem leen ci biir senegal fépp ñi ngi dajee Kaolack Lamine Fall président régional dajee na def na condamnation comme bi rabita bi def fii Moustapha Ahmad Wan président régional bu tàmba def na ñaari dajee Medina Gounass moom it sëriñ ba dafa bañ ne le bañ dikkee dafa indi gone yu tari alxuraan fekk biñ ne ñi ngi fay ñëw ñetti fan avant Moustapha Ahmad Wan woote na ñu yónnee ko kii email mu wan ko sëriñ bi bañ dikkee mu ne leen gis nañ ko waaye lii moom fii mënuñu ko xanaa feneen moom it woote na ndaje ca Medina Gunaas woote na ndaje ci Tamba réew mépp a ngi jóg taxaw fas yéene liidu am loolu nag du procès sëñ daara yi il faut ngeen xam ne lii du yëfi sëñ daara yi yëfi jullit yee alquran mooy ruuxu diinil islaami diine ju amatul amatul alquran mooy jëmm ju amul ruux te lii suñu ko defee alquran dafiy jóge xam-xamu diine moom waxatuñu ko ñu mel ne sëñ Xalil leeral fi lii ñu leeral moom su lii jàllee moom feek vingt kenn doot bu ñuy màggatee kenn dootu ko gis foo koy jàngi juróom-ñetti at ngay def ci daara yi ñett yi mooy alquran ñaar yi boo ca dee mën a mos dara mott li la ñetti at yu mujj yi ku la bindal dem kaso kon nañu xam ne procès bi ku leen mën a wax te waxu leen lii xamut li ci nekk wala jubut ku ci dem ci sama page Facebook publie publier nañ ci ñaar yëpp moo gën a gaaw ñiy jëfandikoo Facebook bu arab bee nga ca bu France baa nga ca bu français baa nga ca xaalis tres tres la ku ko ci xool da nga ko ci gis ku ma yónnee sa sa sa email par SMS bis bu nekk ba ñëwee ba nëgë ni ba 2 heures du matin maa ngi koy am waaye ku ma yónnee danaa la ko yónnee email ku ci ubbi sama page Facebook dana ko ci fekk. mi ngi tasaaroo fu nekk jullit bu nee na ko jël xool ko ba nga xam ne du ne ci kumpa liñ ciy dige ne mën nañ ko cee def suñ ko ci doon def bala ñu ko cee def su fi téeméeri daara nekkee juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent danañ ko gassul ba àggal ko nu door a xool te ja ca des tur tur wa lay doon waaye école lay doon kon ñoom xam nañu li ñuy def bu baax njàng mii fi nekk te ñoom ñu yor ko yëg ngeen ne xanaa at mii ñu génn yëpp dañ ko doon dëppal assis yi njàng mi dafa dofoon ñi di ko ndëppal assises yi assises de l'éducation lu ne def nañ ko ca budget bi lu nekk moo moo ëpp ci euh, budget bi it ministère de l'éducation moo ci ëppale inspecteurs yi lu ne def nañ ko dajal na ñëpp wax tey jii la école bi gën a bon waaw buñ ñu fa bee daara yi dolli ko ci nag nu muy mel kon nañ jóg ci nax yi te xam ne loole sëriñ siidil muxtaar wax duma ko nangu tey duma ko nangu ëllëg duma ko nangu ba faaw te sama bakkan laa ci teg sëñ daara yi foofee la ñu nekk alxames jiidal si démb lañ fi dajee woon fii ci tuubaa bañ noppee mooy déclaration yi ngeen gisoon wax ne lànk nañ lànk nañ li tax mooy ginnaaw gouvernement moo ko def même dossier yi ñu ci yor ba tey jii may wax ak yow gouvernement laaju ci xalaati daara ñun ñoo ko yëg gëstu ko ba jot ci rek di ko waxtaane waaye du du ñoom ñoo ñu ko jox léegi nag ginnaaw ñoom am nañ fayda ju toll ne dañuy liggéey te duñ ñu ci boole ñun it lu ñu jox ñu woon ko gannaaw liñ jàppoon mën nañ cee jàpp hmm? xawma lu ñuy wax ci lu xar jàpp ba ami béjjën bu kee mën caa wéy daara liñ jàppoon ba nëgg ni mën nañ cee wéy luñ amoon benn tey ña nga cay ab ñaar te loxob état mu ceene kon su ñu bëggee indil poset nag dañuy lànk tey jaral nañu suñuy bakkan nag baye boo nag ngeen wàcc tey déglu ci fat yi di ñëw ah su nte ne am nañu dëgër bopp jéem koo wate day yaakaar naa sëñ Sidi Maxtaar ma ne sama bakkan laa ci teg balaa bakkanam seen bakkan ñoom waaw kay seen bakkan waaw ah, waaw ñun duñ dem fenn fii la ñuy toog di jàngale sëñ Seydi Moxtaar ne ci suñ kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullah